salaamaaleykum message bi may lancé maa ngi koy lancé ministère des transports sénégalais yi dañu dem wut seen permis normalement am ko bu fekkee ni permis yi dañ ko fi bëgg a jëlee permis bi du nit ki ci boppam moo ko jeexal état moo ko jox te amul benn décret boo xam ne dafa génn pour arrêter permis papier yi mun nañu woon nit ñi nag parce que avancement lu ñuy ñaan mooy permis numérisé yi tey ji en Europe aux États-Unis partout moom moo fa am yokkute la xeetu yokkute la mais bu ñu nee à partir du 3 képp ku yor permis papier sa permi baaxatul man policier bu ma arrêté ni ma sa permis naa la woon permis papier su fekkee diggante bi aw ma temps parce que permis bi man defar lu ma sama bopp état moom ko jox te amul benn décret boo xam ne génn na tey ji pour jeexal validité permis yooyu donc nag nañ woon nit ñi ci njëkk ak teraanga ñu dem indi seen carte de santé fay 10 mille francs récupérer seen permis mais doo forcer nit ki ni ko par force de droit da nga war a ñëw ñu nekkoon ci réew mi nag ñoom fan lañ jëm il faut que ñun état lañu faral état la ñu àndal mais bu ñu gisee loo xam ne jaarul yoon tamit dañuy taxaw ne lii jaarul yoon wasalaam